man la Altine Sow présidente euh, leketu Guy Mariama muy calebasse d'or bi nga xamante ne fii dañ ko formé fii ci Guy Mariama Laayeen depuis daaw tey ji su ñu doon toj suñu kees pour deuxième édition bi donc euh, première édition bi defoon nañ ko am ci ndam waaye tey deuxième édition bi dafa jéggi dayo ndax euh, nit ñi non seulement yokk nañu membres yi kees yi yokk nañu waaye ren yàlla dafa def ñu réaliser un montant de onze million cinq cent soixante huit mille cinq cent ñi nga xamante ne ñetti kees ñoo ko cotiser woon. donc kees une dafa cotiser woon trois millions sept cent quarante neuf mille deuxième kees bi daal di am trois million cent vingt quatre mille troisième kees bi am trois millions quatre vingt mille loolu part la yoo xamante ne femme bu ne yaay xool li nga attan ci sa doole chaque dimanche muy mille francs ba cinq mille nga indi ko. daal ci teg nag sa 200 solidarité 200 solidarité yooyu tamit am na xaalis bu mu jur 200 solidarité yooyu jur na xaalis boo xamante ne ñun bi koor gi ñëwee. bi ñu ne suba la rek donc la veille dañoo jënd jox ñëpp suukaru koor pour ku nekk mën ci euh, commencer daal sa koor mu bañ a metti à hauteur de 698 300 xaalis boobu aussi muy paar yi ma la waxoon sànq dañ ko doon jël di ko lebal famille 5000 boo leb day teg 500 am na ñoo xam dañoo jël 200000 am na ñoo xamante dañoo jël 350000 léegi nag kees ci lebale boobu ci la ñu am intérêt yi joxe 737 500 loolu moo tax montant bi egg nii ma leen waxee ni 11 millions bi ñu dajalee loolu yëpp donc may wax rek nekk kees bi dañ ko def rien que pour un développement communautaire xooluñu ci ma Masamba xooluñu ci Mademba képp koo xamante ne. am nañu yaakaar ne que war nga ci mën a gis sa bopp rek da nga ciy ñëw bokk. lu ñu bëgg mooy instant yi am incubateur boo xamante ne femmes yi pour ñu am seen autonomisation ñëpp xam nañ ne il faut mu am incubation muy formation yoo xam ne dañ leen ko war a defal ndaxte soo xoolee tabaski bii mi ngi ñëw lépp lu ñu investir femmes yi fu mu nekk nii. dañ koy neexale jee seen jëkkër yi su ma neexee wax ko ndax tabaski bi xaalis bi yëpp ñu ngi dem jëndal xale yi yére Euh, euh, dool di ci xarma ndugg alors que xaalis bi waroon na leen servir à ce que ñu jóge stade bi dem ci beneen stade mais gis nga day naax saay bu dimanche in prochain incha allah bu ñu commencé nag euh, troisième édition bi ñu commencé recommencé à zéro ji ji nat léegi nag ñun ñaan nag léegi donc dugg ci ut ay formation pour que ñu jàngal leen naka la ñuy épargner ñu jàngal leen sooy def commerce ban montant mooy nekk sa fonds de roulement lan nga war a laal lan nga warul laal la preuve euh, Covid 19 bi dama jël euh, def demande yóbbu ko au ministère de la femme pour que ñu am aide ci Covid bi mais dès que ma dem rek dañ ma ne amu leen kayit te ñëpp xam nañ ne que léegi il faut nga formaliser sa yëf moom laa leen doon ñaax tey pour que buñ ci jógee ci fii ñu mën a dem defar suñu kayit lu mën a ci am ñu mën a séddu euh, le président teg na ay fonds yoo xamante ne rien que pour accompagner ay kii c'est vrai que DER baa ngi fi waaye fonds JIP mi ngi fii euh, euh, ministère microfinance mi ngi fii ñoo ñëpp war nañu mën a am ay mesures d'accompagnement pour ces femmes là comme ça euh, nu mu tëddati ñu mën a am seen autonomisation. waaw mbootaayu jigéen la parfois mu am ay couac mais bëriwul daaw moom amoon nañ ko parce que nit ñi nanduñu woon principe bi naka la mais ren bi ñëpp comprendre xam ne que war a fay. te fay bi mettiwul chaque semaine rek loo am booy ñëw natt da nga koy da ngay sànni mais bi Covid bi ñëwee aussi ñu tam dañoo euh, topp élan de solidarité nationale bi daal di nag dindi lépp li nga xamante ne mooy euh, pénalité daal di leen koy oyofal nga xamante ne xaalis ba ñu jëloon rek la ñu fay. na marge bi ñuy wax sànq muy bénéfice bi dañu bàyyi ba que tous les euh, toutes les parts du moins soit données à leur personne retournées à leur personne ñu doog a jël nag li ci des. delloo ko nit ñi muy seen intérêt yi nga xamante ne ñoom moo topp seen xaalis ren moom amuñu benn problème toutes les femmes ont payé leur dette